Abass bi ñu génnee kaso dañoo am benn waxtaan dafa ne yéen waa ngunu siin ma ne ko non Diomaye on dit pas ngunu siin on dit ndungu siin ñu werante ci werante ci werante benn bis au cours de mes lectures je vois ñuy wax ndungu siin donc un village quelque part dans le Sénégal sûrement et je le rappelle je dis maa ngi lire benn livre je vois c'est bien écrit ici ndungu siin du du ngunu siin ndungu siin la et tey je lui alors c'est quoi c'est ngunu siin ou ndungu siin mu ne ma non c'est ngunu siin parce que ñun fi ñu nekk ngunu la <laughs> bon donc on loolu lañu ñu séq li ci moom di ci Ousmane Sonko di ci tous les mais di ci ñi toog fii ñëpp te yàlla indi leen fii ñu bokk pas-pas tey dañuy wax ni lii fi nekk ci ay kilifa te ku ci nekk mënoon na légitimement nekk le président de la république du Sénégal bu ñu àndee ñun ñëpp te def ni ko Lamine Diante waxe léegi ubbi sunu dënn yi wax sunuy njaboot ñu ubbi suñuy dënn bu ñu jalee dina jal jali parce nag suuf bu sotantee dañ koo jal te li koy jal mooy ay nit yu am pas-pas bëgg koo jal kon faaw mu jal jali loolu li muy tekki mooy bu ñu ubbee suñuy dënn wax suñuy njaboot ñu ubbi suñuy dënn seeni dënn nañ wax sénégalais yi ñu xam ni ñun ñooy ñu wara indi la changement te mooy changement bi nga xam ni suñu candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye te Ousmane Sonko joxoñ ko joxoñ bu sell bi moo taxaw fii pour porter loolu li ñu soxla bëri na mais dañoo wax ni la beauté d'un tapis dépend de la diversité des couleurs qui la composent nous avons énormément de couleur de compétences énormément de couleurs de patriotisme énormément de couleur de volonté et de détermination bu ñu ko dajalee dina jaljali je vais parler aujourd'hui d'infinitif et si je disais que je choisirais une lettre de l'alphabet donc une consonne de l'alphabet au hasard je choisirais le R du ngeen ma gëm parce que j'ai écrit des R donc j'ai pas choisi au hasard mais j'ai choisi en relation avec le sens que cela présentait. R, pour le rétablissement de l'état de droit et des valeurs républicaines. R, pour la redéfinition de notre modèle économique qu'on doit nous réapproprier, produire pour nous, par nous et nous ouvrir au monde. R, comme nous réapproprier nos ressources et notre monnaie. def ci li ci war yëpp R comme la refondation de notre diplomatie par l'instauration d'une diplomatie économique et panafricaine. R comme le renforcement de notre souveraineté sécuritaire et ensemble, et simplement de toute notre souveraineté. J'aurais pu également choisir un autre infinitif. Partir. Partir, ce ne serait pas partir directement prendre, prendre de la prison, le ramener avec nous. On espère qu'il va nous retrouver pour battre campagne avec lui. parce que j'ose espérer que après tout après tout ce qu'il a fait subir au peuple au patriotes après tous les morts après tous les blessés après tous ceux qui sont en prison à Macky Sall il reste une once d'humanité pour comprendre que nous avons besoin de faire ce chemin avec nos candidats j'espère qu'il l'entendra j'espère qu'il comprendra Parce que s'il ne le fait pas, nous partirons. Nous partirons faire quoi? Chercher les autres comme nous, ceux-là qui aiment le Sénégal et qui ne sont pas encore là et qui viendront demain, après-demain, après après-demain, dans les jours qui vont venir. Et ils sont nombreux. Nous irons les voir tous. Nous sommes convaincus que demain, quand on va rappeler encore les citoyens sénégalais comme vous qui aiment ce pays-là, Mais on verra d'autres visages, d'autres illustres visages, d'autres illustres fils de ce pays déterminés à changer ce qui existe parce que nous en sommes, tous pleins de ce que nous avons vu. Infinitif comme voter. Infinitif comme faire voter. Infinitif comme surveiller le vote. Mais infinitif comme convaincre. Infinitif comme être uni infinitif comme gagner être victorieux dootuñu guddal parce que amul lu ñu waxoon lu ñu war a waxaat tey lu dul ne gagné guñu gagné guñu de ndax naagu baaxul les certitudes sont les plus grands ennemis aujourd'hui ne marchons pas sur des certitudes ne dormons pas sur no lauriers. On veut gagner, mais gagner, c'est combat chaque jour, désormais. ku nelaw ba 9 heures yaa ngi yàq suñu liggéey ah ku tëddi 10 heures yaa ngi yàq suñu liggéey je pense que ñi jot a liggéey ak ñun quelques ces quelques jours si xam nañ ni 5 heures du matin la ñeen ñi di tëdd 8 heures ñi ngi wàcc ci kaw talib si mais ça il faut ñun ñëpp ñu comprendre ko parce que kër ak kër la ñu war a dugg te du doy te su ma nee kër ak kër sax mu gàtt xëy na mais on doit gagner dans nos maisons d'abord on doit gagner dans nos concessions dans nos villages dans nos quartiers dans nos commune avant de gagner à l'échelle nationale te bu ñu gañee Diomaye dellu si ndax ñun bu ñu gañee Ousmane dellu si ndax ñun bu ñu gañee delloo prisonniers yi seen njaboot j'espère que le président dont le mandat est fini ça il est fini déjà d'ailleurs il comprendra que bala ñuy dugg ci élection bi mu delloo ñu suñu candidat ñu ànd ak moom bu amulee nous serons encore plus déterminés parce que man mu Diomaye bu nekkee fii damay noppalu keneen dina noppalu parce que su ma neexee dem tappalee dem toog fële nekk Thiès laay yem bu fi Diomaye nekkul dañuy gën a sonn parce que on doit gagner sans lui notre détermination est quintuplée si Diomaye n'est pas là su ma gars kilifa yi ñu ngi sant yàlla di leen gërëmat bu baax di wax ni bu ñu liggéeyee ci anam bii